gars yi nañ bàyyi di insister ci ay 6 millions 6 millions du xaalis Fatma man 17 combats laa bëre ci làmb 17 combats du juróomi combat man bu may bëree 17 combats ba tey ñu may fay 6 millions ci làmb jot na ma bàyyi làmb dem Europe toog comme samay morom teranga teranga la. man nekkuma fi pour toroxal sama njaboot nekkuma fi pour lamb ñu naan soq soq di ma tudd di coow soxlawu ma coow boobu lamb dama ciy liggéey pour am alal pour dimbali sama yaay dimbali sama soxna dimbali samay rak nekkuma ci pour biri wi kese su doon biri kese moo ma ci bàyyi damay bàyyi lamb sama combat gàmmu gay man samay propre moyen yoo xam ne ak sama nit dépensé naaj ci huit millions maa gàmmu gay bii passé barke Serigne Saliou Mbacke bi njëkk yàqu nag laa waxuma bu mujj bi bi njëkk a yàqu dépassé nañ ci huit million mu yàqu ñu perte ko kenn joxaatuñu fukki dërëm kenn joxaatuñu dërëm bañ ko jàppaaree samay mbokk dañoo jël liñ am lépp def ko ci ma daan gàmmu gay taxawaat fii xëy ñu bëgg maak franc ñu naan ma six million six millions du xaalis dañ ko jël teg ko fële man lamb visé gu ma ci xaalis léegi xam nga lu ma ci visé nekk ci champion ba pare du xaalis bi mais tey ku ne xam ne ni soog ak franc du combat wu caaxaan combat wu carrière nit ki la parce que man ak moom dañoo am fu ñu toll foo xam ne da ngay daan dem ki daanu xaar kon tey loolu boo koy bëri da nga koy bëri ci fulla ak fayda gars yi nañ bàyyi yi ñuy def man toog dépassé naa fu ma promoteur di naxee wala fu may tegee xel. waaye su ma juumul euh, franc 6 millions da koo préparé wul loo tax nga rejeté affaire yi am na ñu nga nekk franc man bañu ma ko yàq sama yoon. ndax lamb daan ak daanu moo ci am ak match nul dañuy ñaan yàlla bu ñu bëreeg Franc daan ko jéggi ko dem mais du loolu moo ñu bàyyi ci lamb gars yi bu jël naan ay 6 millions 6 millions 6 millions weccit la su ma ko jëloon suba suba suba suba balaa ñuy def un mois mu jeex ba may wuti lu ma préparé sama combat. géwéekat yi 6 millions yooyu est ce que soq mës na koo kii am na cachet bu ëpp lool parce que ragal Franc. mais bu ñu ragaloon ma ko joxee man leen ma ko Franc man maa wàcc pour bëre ak moom man maa ñëw ni nañ ma jox Franc mu bëre ak moom. kon da nga koy may ma ko changé rawu ma ko rawu ma xale la may xale deful ci làmb lu ma ci deful defuma ci lu mu ci deful may ma chance Franc de ki nga may chance mooy ki nga raw. li tax ma ne damaa wàcc pour bëre ak moom parce que xam ne maag moom ñoo fi nekk mooy combat jànk soxla ma combat bu yomb moo tax ma ñëw pour bëre ak moom mais bëre ak Franc taxul may taxaw ñu naan ma 6 millions may bëre ak Franc Franc bu may bëre ak moom 6 millions képp kuy sama mbokk war nga ma yedd bëreewu ma ci làmb pour ay weccat man dama bëre ci làmb pour am kase boo xam ne suba bu ma bëggee tabaxal sama yaay kër tabaxal ko bu ma bëggee faj ay soxlam faj ay soxlaam làmb bëreewu ma ci pour am tur kese yee dama ciy bëre pour gagner si li si gars yi su ma bëree 17 combats man ba tey ñu may fay 6 millions war na ma war naa bàyyi làmb 17 combats laa bëree du ma xale bu ndaw ci làmb. mais sox ñu bëri dañ ne. yi muy laaj dafa bëgg ko fay 6 million mais fayuñu ko 6 millions pour mu pour mu digganteem ak Franc. barki yonenti yàlla Mouhamed sama ménagère ak may dégg fay nañ ma 7 millions bëreew ma ak Franc man man amul lii laay bëgg wala lii laay bëgg man du ma fóotib man lu nekk ci man laay wax lu nekkul ci man du ma ko wax. dama laajuma kii am ñaata dama am staff loolu du samay mbir ma am lii damay leeral rek parce que promoteurs yi dañoo tàmm bu ñëwee waxaal ak yow combat bi taxawul ñu ne combat si diw la yàqoo marchandise jënd ak jaay la da ngay yor gis marchandise ñëw waxaal ak borom ba jiboo fay bu boo jiboowul ak borom da ngay dem xooli beneen marchandise mais promoteurs yi ñoo tàmm buñ discuter ak yow combat bi déggoo waleen ci prix ñu génn ni combat bi ci diw la tegee diw moo daw combat sama staff ak may dégg man maa ni maa fi bàyyi mbër yëpp ni nañ ma jox Franc ma bëreeg moom su ma su ma amoon lu may moytu ci Franc maa naan leen bëreew ma ak Franc kii laay bëreel am naa ci droit 17 combats laa bëre bëreeg samay morom yëpp ku ma bëgg a bëreel ci làmb damay bëreeg moom mais maa bëgg a bëre ak moom gis nga Balla Gaye seen frère seen lépp bu bëree ak yam tere mu teg bombardier mu nekk moom seen frère bu nekk combat am coow gars yow nan nga gisee boobu ñu naan Balla Gaye entraîné wu Balla Gaye dafa jeexal dafa war a bàyyi bëri mais yow en tant ma loolu mbër du critique mbër rawatina nag mbër bu ndaw ñoom ñu def ci lamb lu ma deful ci làmb mbër du critique mbërëm bu mbërëm loolu amateur ak supporter ko moom man xam lu ma xam Balla Gaye daa waroon ñàkk bis bi ñàkk na ko ñu ngi koy encouragé bombardier yàlla na ko ndam li jik ci barki yonent bi yàlla leeral ñii ñiy critiqué Balla Gaye nañ xam ni làmb moo demee noonu ndax indi na fi état bu nekk daan mbër kon tey bu ñëwee nii ñàkk na ko nit ñi encouragé ay supporters encouragé ko xamal ko ni ko lii moo ñu naqari lii moo ñu naqari mu dem defari loolu leen naqari mais mbër du critiqué mbër man awma lenn lu may critiqué Balla Gaye 2 wala benn affaire Bombardier laay félicité di encouragé Balla Gaye wasalaam.